dama ci jëloon benn position nag ci benn rajo de la place te vraiment je refuse de me contredire. Mmh. parce que dafa am lu sama xel de léegi Malal wax na ko Bouba wax na ko. Mhm. et nag Lamine moom bu waxul dëgg wax safaan. gis nga dose politique bi ngay wax mu ngi ci mbir mi am na ci. Mhm. ku bëgg a waxal yàlla rek. mais bi mbir yi daw may gis dama am benn position bu ma jëloon am ci yàqin dama toog sama benn copain mu wax ma ma ne ko lii du am procédé mu ne ma foo teg nguur gi daanu loolu laa gëmoon ma waaye léegi nag mënumaa gëm loolu ba tey ñu ne jàpp nañ bis mooy bëgg gëmadi gëmm di loolu ma waxoon li may sàkku kay mooy que ni képp ku ci am ay droit nan ko respecté parce que wax nga fi léegi lu am solo jegewaayu agenda bi may fàttali sama candidat Karim Meïssa Wade li ñu ko def gën naa wecc metti loolu six mois la tëdd war a dem këram ci guddi gi ñu déclaré waat yeneen six mois yu ko fay téye kooku tegloowul ndànk tegloo dëgg la def pour dëgg pour wax ni Euh, euh, monsieur le wax na ko léegi vraiment injustice bi ñuy xalaat justice bi ñu yàgg nañ koo subir mais concernant ça Ousmane Sonko xam ne ni muy toje bopp gën a xam am na ñu koy conseillé am na ñu koy xelal am na ñu koy wax fi mu war a jaar man daal li ma gëm ba gëm mooy lu mu mënti am am réew bu ci mbir demee yoon buñ ko yeggalewul tooñ réew mi yeggale bi nag naka lay bindoo yan procédure la ñuy teg pour mu jaar yoon ba kenn ku ne gis ci sa bopp loolu la ñuy ñaan justice def ko tëdd njaaxaanaay lu ci waay may nit kooku jël. Batara waaw DER.